asalaamaaleykum wa rahmatullah maa leen di jaare leen nuyu kenn ku si nekk surtout ak sa sant ñun ñi fi nekk ay ouvrier lañ di daan suñu doole bu ñu xëyee fajar dañuy daan suñu doole di liggéey amul benn salte amul benn mbalit amul lenn lu yàq fii loo xam ne ñun ñu fiy liggéey dinañ ko ne ko fi def au contraire dañuy defar dañuy setal insécurité bi fi am nag bu wàññeekoo sax ci matinal bi yàlla ak ouvrier yi fi nekk ñoo tax fii lu fiy am par guddi gi la fiy am te loolu du suñu responsabilité jën ñëpp d'accord nañ ne insécurité bi am fii du fii rek Maristes rek dans tout Maristes et puis lii et puis dool sax généralement ci Sénégal gi yëpp la te li ko war a ñun xam nañ ko donc bu ñu ñëw supposé ñun insécurité bi ñun ñu fiy liggéey ñoo ko indi wala ñoo ñoo ñoo leen koy permettre wala leen c'est faux daan doole moo ñu fiy indi du leneen kese fii insécurité bu fi am ñu ko fiy def dëkku te ñoom ñoo la gën a xam ñu ko fiy def sax dëkkuñu fi

donc bu ñuy wax fii insécurité ñoon ñun ñun ci la war ñu ma la war njëkkee ñu la war njëkk a ñëw wax ak ñun comprendre nga baax ma la mais waruñoo ñëw di ñuy wax naan ñun ñooy les princi principales causes yi ñoo ñooy jàppale gars yi wala wala c'est pas di ko pour lan ay saleté bi fii am ñun ñoo koy def fii fi ku nekk ay responsable lañ dañuy xëy ci garage bi ba ci garage bi kenn ku ci nekk boo xëyee da ngay nettoyer defar ba mu set wecc yow say say say say say say say apprenti kenn mosu ñoo ñoo fekk fii du ñu àndil ay problème mu drogue wala yamba wala agression wala lenen ak lenen fi digg daan dol lañ fi xamé buñ xey dañuy nettoyé ba set wacc du deug kon donc waru ñoo ñew dañuy wax ay problème ay nan insécurité bi fi insécurité c'est général té ñom xamna ñuko andi du fi rek maris fo dugg amna agression fo den fo dugg amna agression lamb ji ngay gis ni lamb ji fan la lamb ji fep lañu fuñu fo foo bu commencé par exemple euh, euh, face buñu jaar fuñu jaar ak autoroute bi ak Grand Yoff yëpp secteur kenn ku nekk yaa jambat. jàmbat lan moo tax ñu jëlee arène fee euh, fee ñu jëlee lamb lamb ji biir ba Dakar yóbbu ko arène nationale fële mais ña fa nekkoon anatur ñi wara régler sécurité bi ñom nun nañ ko régler mais di ñom ñi ñoo ñëw di accuser ay nit naan leen ñen yéenay def ni wala yéenay def ni on a rien fait dañ ay ñun ay citoyen citoyen exemplaire lañu dañuy dans suñu doole. ñi def di organiser nañ ko arrêter té buñ sukkandiku ci gouvernement bi di wax ay wax yo xamné diñu et insinuation di ñuy accuser yo xam ne loolu ça ne passera pas duñ ko nangu té luñ ci bañu nak bañu ñu ko nañ yem sen place fi moomuñu ko té duñ jaar ay mairie wala ay gendarmerie dañuy sosal dañuy waxal ay faux problème lu taxawul comprendre nga uniquement pour ñu joggé fi ñom ñu ñew occuper ko duñ ko seetaan du jall ça ne passera pas nañ jël loolu voilà li ni exemple la lay jox li ni ñom dañoo dam péage expliquer leen comme quoi que ne gars yi dañ leen di agresser fii xam nga moto yi ñoo fi jaar moto yi ñoo leen di agressé ñoo andi lii la preuve en est que ko defee ba léegi agression daa gën a yokku donc kon li ñuy wax lan la li ñuy wax posé wuñ ko dara lii mu ngi nii exemple baa ngi nii exemple patan ngi nii def nañ ko fii def nañ ko fii te passerelle yi nekk fii yëpp ci maris bii rek lañ ko def te pourtant même ñi secteurs yee fële la même fii mosuñee fay rey nit parcelle bi nekk fee mosu nañ rey nit te fee ñee ñoo ñee ñee ñoom ñu niy def nii ñoom ñoom defuñu ko moo lay wonde la ñee am na bii visé amna luñu bëgg ñom du question ay problème agression yo amna luñu bëgg ñom li bëgg c'est rien du tout ñu joggé fi ñom ñu occupé ko la preuve en est que su ngeen bëggee moo woon leen jardin bi nekk fële mu ngi ne la fee dañoo kaas bañ dindi ko ñoo samp fa nit dañoo kaas ba ko ñoo ñu ko fa newoon ñu dindi ko ñoo samp fa nit non nak lañ bëgg ñum ñëpp ñu jóge fi ñoom ñoo samp ko leur but principal leur objectif principal c'est ça du lenen jóge leen fi ñun ñu ñoo tok fi ñoo xala du ñu ay sénégalais bonjour je m'appelle Papa Malick Fall je suis, eh, eh, un mécanicien, je travaille ici. Tout comme tous mes amis qui sont là. On est venu aussi aujourd'hui pour déplorer ce qu'ont fait les vieux du quartier. C'est déplorable de leur part de venir pour nous accuser des choses qui ne sont pas vraies et de dire des choses euh, qui sont vraiment déplorables euh, à l'égard des travailleurs qui sont ici. Maintenant, nous, en tant que travailleurs, on est venu pour dire notre opinion, notre point de vue sur ce qui se passe ici. il y a eu des agressions, certes, il y a eu des problèmes, les gens ont été agressés. Moi-même, j'ai été victime d'agression ici. J'ai été agressé il y a quelques années ici. Je connais les gens, je sais comment ça se passe ici. Alors, j'ai été agressé, les gens rentrent dans les niais, Ils ont à un passage secret qui est là-bas, ils passent là-bas, ils se partent. Ce ne sont même pas des gens qui habitent ici. Alors pourquoi ils viennent venir nous accuser en tant que travailleurs pour dire que nous amenons la salubrité, nous faisons des choses sales, hein? nous amenons la pollution du CO2, les voitures volées, ce qu'on a cassé, les gens qui, les gens qui ont les motos qui, qui, prennent les affaires des gens. Pourtant, ce ne sont pas des gens qui habitent ici qui le font. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent, qui rentrent ici avec leurs motos, qui font des agressions, ils partent. Certes, ils passent par là, mais ici, bloquer ce pont, ça ramène qu'à aggraver le danger. Parce que ici, quand, quand il n'y avait pas ce, barrage-là, les motos passaient. Et quand il y avait un agresseur, si on agressait quelqu'un, les motos venaient, leur venaient en aide. Alors, barrer ce pont revenait à, encore aggraver le danger qui se trouve ici. Bon, en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on déplore vraiment. Euh, bon, on n'a pas pu concerter, discuter avec les vieux, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de venir nous, en parler, de discuter avec nous. Il n'y a pas eu de concertation. C'est pour ça qu'il y a eu un peu de malentendu entre nous. Mais ça, c'est pas grave. Ce sont des histoires qui arrivent tout le temps dans la vie. Mais bon, encore, euh, c'est dommage, désolé. Mais bon, notre point de vue, ce que nous voulons dire au global, c'est que nous déplorons vraiment ce que les vieux ont fait. C'était vraiment un passage de leur part. Il y a eu quelques interlocutions, mais ce n'était pas quelque chose d'assez grave comme ça. C'est juste des malentendus. En tout cas, nous dénonçons vraiment ce qui s'est passé. Euh, nous, pensons vraiment que euh, à l'avenir, il, y aura des discussions entre eux et nous, avec les autorités qui sont interpellées dans leur, dans dans leur déclaration, pour qu'il y ait de, des entendements, des discussions pour qu'on puisse s'arranger au lieu de détour Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.